allahuma salli ala sayidina wa maulana muhammadin al awarri billah wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi bilatana barke borom mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di jiital ci nuyoo bi sëñ Muntaxa Mbàkke ñaan saa borom yàggal ko fi loolu te mu ànd wér di jël nuyoo waa Kepaangook salaatu ala nabi yëpp ci njiital sëñ Basiru Ture di ko jox sëñ Abdou Samad moom sëñ Soxebu mi ñu fekk ci këram tey ngir mu waxtaanal ñu ci lenn ci njëriñal salaatu wa nabi mu noppi soññ mbooloom keppaangof salaatu wa nabi ci naka lan wara fonké salaatu nabi nan lañ ci wara doxé lepp nak ñi ko ñi ci jublu wajal bisub salaatu wa nabi bi nga xamanteni ni ren ji moy nek ñaaral bi yoon ñukay def kër sëriñ Bassirou Touré fele ci sam mboq mubarak ñi ziar mbolum yépp di wax sëriñ Abdou Samad Nako wa kepangu sa to wax bi koy bégge bu wër di safo te mu ñëk ci sëriñ bassirou Touré xamantene ne la am ak contenté ñëw fi sa wét dagan la jotay bi ni kon dañuy ubbi suñu xol taataan jox kaddu gi sëriñ Abdou Samad mu laa wiire ñu rek ci salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam waajee ko bis boobu di bisub salaatu ala nabi bi ñuy amal pour sëñ Bassirou Touré le 14 décembre 2024 incha allah rabbi kon ñu jox kàddu gi sëñ bi incha allah. billahi min ashaytaani rajim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لشيخنا أحمد بن محمد بن حبيب الله ما نواه لنفسه وهب لأمة رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك ما نواه أحمد بن محمد لهم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi nuyu mboolem soppe yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di nuyu mboolem taalibi Sëriñ Tuubaa yi koy liggéeyal ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di jiital ci nuyoo boobu yi kii ko fi nekkal Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko te ay yéenam ci liggéeyal sëriñ bi di nuyu bokkam yëpp ay rakkam ak i doomam ak setam ak bokkam yi ci biir yoon wépp ak cheikham yi cheikh yoon wépp ak taalibi yoon wépp dina ñaanal it adduna ak jàmmi àlaxira sëriñ Bachirou Touré mii nga xam ne sunu dooma ndax soxna Tahiratu mu Sëñ Abdul Ahad mooy waajuram waaye day nun ñi ko jurit yebuñu ko te naw nañ ko ndax ak jubam ak xam-xamam bu rafet ak nang koo joxe te sëriñ bi rekk tax ak it bëggam yonent bi sallallahu alayhi waaye bëgg googu gépp nag daa dugg ci bëgg sëñ bëgg yonent bi moo tax amu ci sago ak liggéey bi mu ciy liggéey di ci gindi nit ñi ba keppaangu gii ngeen di wax ak njàmbaaram moo tax mu egsi fi mu egsi te it mën naa àgg kon nag boo amee bis bu mel nii ñëpp la defal jàpp naa ni ñëpp a ci ànd ak moom dana bari moos ko toog ci këram te xamu ko def ay salaatu ngir jàppale ko ci bis bi te du fa ñëw te du ko wax naa loolu kon nag noo ngi ci soññi bokk jullit yëpp yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp ko bokk waaye nag di ci soññi nag bokki taalibe mu yi xam ne nag dañoo am yaakaar joo xam ne yaakaaram jëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam la kon nag lu ko waay mën a defal liggéey boo ko mën a defal liggéeyal ko ci ti bi ko gënal loola salaatu annabi nag def am doole lool te rëy lool ci borom bi ndax lu mën a digal jaam ñii daleen koy digal rek waaye moom rek mooy loo xam ne da koy defandoog ñoom inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi door ne nag yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi fekk ngeen ma ci maag sama malaayika ñu di ko def fekk ngeen ma ci maag sama malaayika ñu yë julli ci yonent bi kon nag yéen ñii gëm julli leen ci moom sëlmal ci moom loolu nag Sëriñ Tuubaa bay ci laaj ci ne kenn mësu koo bay te kenn du ko bayaat ndax waxuma limu gi quantité bi ak qualité bi waaye fam ko doon defee nam ko doon defee foofu la ko kenn du fekk nga tëdd ci sa néeg mu sedd lekk la nga bëgg a di julli ci yent bi na nga ko bëggee baax na naam waaye toog ca gaboon noonu yi wër la kenn ku ne yor ay ngànnaay kenn ku ne bëgg laa lor ba noppi nag sa xalima yi daw sab xol di di tudd yonent bi di ko di ko di julli ci moom saw làmmiñ di julli ci moom sa xalima di bind di julli ci moom loolu la ko kenn fekk <laughs> salaatu sitta bi matxi sitta tatihi batta maa tisay moom joxut yonent bi lii bàyyi lii da ko jox léppam waaw da ko jox léppam xaaj juróom benn weer yi muy julli ci moom juróom benn weer yi mu di ko tagg te salaatu sëriñ bi li nga koy xamee mooy du julli mukk ci yonent bi te sëlmalu ci du julli ci yonente mukk te ñooñam ak sahabam andu ci foko gisé rek amna luñ ci wàññi wala sëñ bi def muy lo xamné nak jëf yëpp baax jëf yëpp a yaakaaru waaye moo ci gëna yaakaaru ana lutax muy jëf jo xamné kenn duko ma sama dégg Cheikh Ahad radiyallahu anhu ñu ne ci kër Abdou Karim Fall ci fatu yim daa fatu foofu yàlla dogal mu yóbbaale ma fa mu feex lool ci waxtaan muy muy waxtaan nag ci sëriñ bi daal di ne jaamu yàlla yëpp de baax na waaye nag jaamu yàlla goo ci bëgg mu ñu nangu ko mu am garanti danga nga koy jox sëñ Tuubaa addiya ndax boobaa kenn du ko seetati ndax jaamu yàlla gum mën a doon dana dem ba ci asamaan su jëkk si am malaayika mu fa am lu mu cay xool bu ko ca xoolee ba gisu ko bàyyi ko mu jàll bu demee ba ca seneen asamaan sa ja des am luñ cay xool buñ ko ci gisut bàyyi mu jàll noonu lañ koy topp bu juróom-ñaari asamaan yi lañ cay seet buñ ko gisut mu door jàll néewaa na ku mën a romb asamaan yooyu te gisuñ ci sa jëf mu jëriñu du ko def nee na loolu jafe daane waaye nag li tax li tax jox sëñ bi sa lépp gën a noppale mooy sëñ Tuubaa duñ seen dara loo ko jox ñu nangu daal ne man nag man Abdoul Ahad nag moo tax man moo fas yéene samay julleeg samay koor rek sama jàmm yàlla yëpp jox naa ko maa ngi leen koy misaal nag ci mi ngi mel ne wut kooku su ndox amul wut kooku su ndox nga bëgg caa sanku bëgg caa fóot bëgg caa togg daa mënta ne ana nooy def demal mélancé gi borom géej borom géej ju jeex xolal kooku so sotti ko ci géej rek bu ko defee doo du jeex de loolu nag mooy rawatina nag sëñ Tuubaa nga di ko nga di ko liggéeyal ci yónent bi waaw sëñ Tuubaa moom liggéeyal ko moom ci boppam bëgg na ko waaye nag la ko gënal lépp nag mooy nga di ko liggéeyal ci yónent bi di ko jullil ci yónent bi moo leen julli gi ngay julli liggéeyal sëñ Tuubaa nga julli loolu da lay wër ne nangu na ko yónent bi nangu waaye nag lu ci waaye sasoo nag na ko respecté na ko respecté ndax tàmmal tàmmal tàmmal sëñ bi bu ne mu dégg taalibeem bu julli ci yónent bi nangam mu dogg ci ne dana ko def am bis bu manqué te adduna rek tax itti adduna rek tax dara jël bu jub doon kon nag lu ma tabaxal la jàpp naa ne keppaango bi dañuy xëy di julli ma amutoon waaye la ko jiitu néewaa na ngay gis ñu koy def loolu lépp nag ci kimaani Sëñ Tuubaa la bu yàggul rek man mii sos naa euh, jataay yoo xam ne mi ngi war a adduna ñu di ko def te ñu koy def sax duñ gisante duñ xamante te moom mii laa ci jiital diwaanu salawaat laa ko tudde mm, fi ne àgg nañ ci bis bu ne danañ am cent vingt quatre mille ñetti yoon buñ xëyee danañ dama ne nen na ngeen fexe ba am inda sabaax yoo fil masaa waaye léegi nag am nañ bëccëg bi sax sax buñ xëyee danañ def cent vingt quatre am na ñoo ko sosoo du manqué am nañ ay secours nga xam ne ku am ngant jox leen bu bëccëgee ñu amaan cent vingt quatre bu guddee ñu amaat cent vingt quatre mille loolu lépp ci loxoom bii laa ko teg ñu jëm bis bu set it danaa jul bind genn julli ci sëñ bi julli ak léeg-léeg ma barkeelu ci gaa ñu baax ñu ne waaye dama cee barkeelu rek waaye sëñ bi moo ma gën a jox bu ma ca bindee dama koy jox mu firi ko leeral ko nit ñi wax leen lim yi ak lam xam moom it tasaare loolu lépp ci liggéeyal sëñ Tuubaa nun nag sunu yëngu sunu dal sunu lépp loo gis ñu di ci yëngu mbégum sëñ bi rek lañ ciy wut ak ne dañ ko dañ ko fi weesu di dem fenn di wuti leen waaye dañ koy dàkk ak bëggam rek moo tax foo nu dégg ak luñ dem ñun ñëpp foofu la ñu te fi ma ne fi la ne mën naa koo seere ka ci jàngale alxuraan ka ci bëgg alxuraan ak ka ci bëgg yonent bi yëpp da ko bëggale sëñ bi te xam ne sëñ bi ak bëgg mooy yonent bi ak alxuraan loolu rek la waaye sëñ bi suñ lépp nag kon nag noo ngi soññi ñëpp di soññi suñ bopp ci bis boobu bii di fukki fan ak ñeent ci décembre bi ci këram bu ma yàlla mayee kàttan aku man maa fay jiitu ñëpp wax naa ko ne bu ma sëlmalee fajar fa laay naanee kafe <laughs> ma fas naa yéene maa fay njëkk jàng fa ma baatil bichir ubbi ko incha allah di ci soññu bokk yëpp nag ñëpp jàppale ko ñëpp and ceeg moom la ca des ñi mënta ñëw ne bitim réew wala foo ay mën a ne mm-hmm. bis boobu na nga jàpp ci julli ci yonent bi loo man mm-hmm. boo ma ne am numéro yi joxe ko ñu xam lim yi mm-hmm. ku ko mënti suñu borom xam ne lim yëpp te moo ci am solo sëriñ bi xam ne lim yëpp ak sangam kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax te jàpp ci te ñaanal sëñ Basiru itam sasam wu rëy wii mu sasoo muy xamle ak yeete ak jàngale te loolu bokk ci li sëñ bi gën a bëgg suñ borom kàttanal ko may ko wér yàggal ko fi lool ba sasoo du booy mukk ndax am nañ ci yaakaar yàlla bu yaakaar tas wasalaamaaleykum wa barakaatu ala naa xol yëpp sedd nan te li ñu doon am na si lu kawe suñ njort di fatli war mborom rek rek keppaangook salatu ala nabi bin ko sosé ba semaine bu jot ay millions la ñuy julli ci sallallahu alaihi wasallam diko ko jox addiya diko ko ci liggéey suñ ci bi biñ ko sosé nak ba léegi depuis 2021 daw mo nek première édition bi nga mbokk yi woté nan ko comme ni ko suñu Abdou woté woote mbokk yi taalibe yu bari ñi bari xamanté wuñ ndax ci internet bi lan lan lan lan jokk daaw ñu def ko ñu ne nan woote bis bi xamante dañuy dajee julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daaw mu amoon yéene teew lool waaye suñu borom dogalu ko ren na caa teew ñëpp dégg na ko kon ñi ci woo mbokk julli yëpp di fàttali rek ne di di dagaan ci mbokk julli yëpp rek ñu ñaanal ñu ko suñu borom yàggal ko fi lool moom ñu koy dagaan moom mii mu ñaanal ñu suñu jëriñ ji di sëñ Bassirou Touré suñu borom yàggal ko fi ndax bu fi yàggee lépp dina baax lépp dina baax ndax biñ ñu jiitalee bi biñ ko bi bi biñ nekkee ci si keppaangu salaatu ala bi ba léegi lépp luñ xam ci salaatu ala nabi ñëwee ci di ko yaatal yëpp moom mii moo ñu moo ñu ci taat moo ñu ci taaw moo ci taaw lépp luñ xam ci salaatu ala moom mii moo ci taaw kon ñu ngi ñaan sa borom dolli ko kàttan dolli ko dëgër ba lii mu yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa su àggale ko maanaam kooku mbokk yëpp kon ñi sant bu baax Sëñ Abdou Samad di sant mbokk taal bi nga xamante ni ñoom lañ àndal ci bi ñuy ñëw ci demee sëñ Saliou Lo sëñ Modou Mouhamed Thiaré ak suñ caméraman yi sëñ Babacar ak euh, sëñ Moustapha Mbow ak soxna Fatou mi nga xamante ni ñu ngi ci kappango soxna yi mm-hmm. kon ñu ngi ziar ñëpp di wax di jox sëñ bi kàddu gu mujj rek mu ñaanal mbooloo mi. sëñ Makhtar Diagne mm-hmm. na waaw incha allah rabbi na daara ja sasu alhamdulilah mu jox leen ay lim alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah mm. waaw bis bi daal li muy demee daal mooy bis bi bis bisu bi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci moom saa su nekk danañ ci ñaan laal tamit waaye daaw li nga xamante ni ñoo àndoon ñun liggéey bi su borom def ñu jiitu ci ñëpp dañ leen ci ñaanalal ñaanalal waa dawlu yëpp nga xamante ni saa doon bi moom benn ba rek ëpp na kenn nit mm-hmm. waaw moo tax képp koo xamante ni suñu borom ci aadama ba ba ba ba ci jonni tey ak képp kuy demaat ñu dugale ca su mboroom taawu ci liggéey boobu noonu kon euh, ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy fàttali mbokk yëpp ku ci mën aw sas rek ci salaatu an nabi xasida lépp mu mu jiitale ko bis bi bu demee ba ci bis ba tamit ku munta ñëw fa nga toog nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa daf ko jox ko addiya kon ñuy jox sëñ bi kàddu gu mu gi rek mu ñaan mboolem mi alhamdulilah الرحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا آمين لك الثناء والحمد والشكر مع على الذي فضلك لي قد جمع آمين صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من خاد لي نماء آمين مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش آمين ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي آمين على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه ورحمة الله بارك الله بارك الله إن نبينا الرسول أحمد خدمه وما لا يزال صمدا إن نبينا الرسول أحمد